sénégal yi dañu sonn dañu lii dañu laa wante ëllëgu Sénégal tax encore une fois nee naa la dañu doon crété tey jurisprudence boo xam ne. Mm-hmm. ëllëg kum ci mënti doon mën na ci sukkandiku. léegi nag déposé nañ ko tey ci ngoon si nii ñu dégg ne. Euh, am na convocation d'urgence boo xam ne moo am tey ci cour cour suprême. Mm. ah nañu toog xaal en tout cas ñun. pour mën a contourner l' étape du conseil constitutionnel parce que bu ñu fàttali ne rendre na fi une décision pour wax ne lépp lu jëm ci wàllu élection moom am na compétence pour mën ci légiférer mm. mais ñun c' est un acte administratif la ñu attaqué acte administratif boobu ñu attaqué moom la ñuy xaar tey conseil euh, cour suprême jël ci jël ci jël ci rendre ci un jugement mm. et on verra espérons que tey je l'ai di à des à des collègues avant de venir que convocation d'urgence boobu c' est lié à affaire et bu boobaa ce sera le moindre mal pour tey jii yenn candidats yi nga xam ne xëy na euh, ñu ngi nar dugg ci loo xam ne pousse nañ leen ci mais xam nañ ne mathématiquement il peut pas faire alors Cheikh. oui <laughs> looy teg comme réaction. ci soxna faatu situation bi. on va faire juste un rappel des faits nag. Mm. parce que bon c'est vrai c'est très bien am na yu bëri ma d'accord ak euh, monsieur Diop. Mm-hmm. Euh, mais gis nañu fi tamit am na foo d'accordul waaw président Macky jàngal nañu ay mbir yu doy waar te tooñ na Sénégalais yi. Mm. président Macky moo fi njëkk a raccourcir ay délais par rapport ak révision liste électorale loolu fekkee nañ ko euh, gis nañu fi y a des Sénégalais malheureusement yoo xamante ni mujj ñu sax mën a inscrire si liste yi parce que délai yi dafa gàttoon je pense ils avaient ramené ça à un mois maximum ba nga xamante nit ñi dañoon xëy ay cinq heures du matin dem di rang. Mm. di kii donc président Macky Sall tàmmal nañu quand même di ay délais. Mm. ak ah mais ñu woon ci yokki mandat mais loolu ñu woon ci temps <laughs> électoral non mais la durée ah mais la durée xam nga la durée moom la mm. durée légale moom weesu na mm. weesu na un mois mm-hmm. euh, pour révision liste électorale donc xaw na ko gàttal donc mu ñëw sur des accusations ba léegi ñun loolu lañ jàpp mm. je parle pas des spoliés hein donc je parle plutôt de de nos amis de du euh, yi nga xamante ne dañoo ne am na ay ay ay nit yu ñu corrompre au niveau du conseil constitutionnel. Mm-hmm. jusqu'à preuve du contraire ñun niveau accusation lañ ko jàppee. Mm. ndax amagul dara loo xamante ni peut-être euh, jëm na. pour dëggal loolu ak ñàkk ko dëggal. Mm. donc ñun ñun loolu lañ jàpp ñun on man je pense que c'est c'était trop léger. Mm. de la part du président de la République à dix heures du démarrage de la campagne. Mm-hmm. mu jël n'est-ce pas ndogal yi. quand bien même je suis d'accord ak ñi nga xamante ni mooy les les spoliés moi man mon principal problème c'était même bien avant les élections man je suis contre le parrainage en tout cas le mécanisme man dama ne dama contre depuis qu'ils ont depuis rendu euh, nu la décision de la CEDEAO en 2021 mm-hmm. déjà mm-hmm. man j'étais carrément d'accord parce que ni ñu koy defee mm-hmm. ça viole le secret du vote ba pare aussi day violer le droit de participation nest peut-être on ba pare aussi euh, candidat bi amul benn moyen hmm. vérifier ndax il a été bien contrôlé ou pas donc contre expertise mënul am dangay ñëw ñu contrôler ne la lii la bu ñu la ko waxee da nga dem toog hmm. donc amoo benn moyen boo xamante ni mën nga ne non nañu teg lii ak lii ak lii njuumte ak alors que wóor na la yow am nga ay parrainage su fekkee ne def nga ko dans les cas spoliés voilà voilà c'est ça là vraiment man je à cent pour cent avec les spoliés quoi côté boobu noonu man dama jàpp ne vraiment a lésés hmm. léegi nag c'est un enchaînement de faits yi nga xamante ni def na ba Sénégal toll na si diggante boo xam ne war na dem élection mënul dem élection mm. conseil constitutionnel régulateur la donc en matière en matière d'élection ñu gis na ni président Macky Sall wax nañ ko depuis le 15 février mm. jàppal dat mm-hmm. dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais lui il a compris ce qu'il a voulu comprendre en tout cas il a pris son <laughs> temps mu convoqué ay dialogue ak yooyu yëpp kenn waxu ko ko mm-hmm. parce que moi je me dis euh, il avait déjà convoqué un dialogue boo xamante ni bien avant avant mm. franchement ça suffit quoi il fallait ñu dem ci élection mu woote dialogue pour lan ne day jàpp dat mais dialogue ba lan la fa président Macky Sall gën a waxtaanee c'est la loi d'amnistie mm-hmm. malheureusement mm-hmm. ñun ñi seetaan loolu la gën a waxtaanee mm-hmm. ak engagement ferme bi mu jël ci loi d'amnistie bi su ko jëloon ci euh, date élection je pense que cette question serait dépassée ba pare les spoliés ak les recalés demoon nañu gis ko en tout cas bindoon nañ ko bataaxal am ñenn ñu ko gis. Mm. mais bi ñu ko waxee mais le président quest qu'est-ce qu'il a fait mais dafa ne man lii mënuma ci dara en tout cas à travers un ah, communiqué moom demoon na pale ne leen mm-hmm. mënuma ci dara. Mm-hmm. léegi subitement lan moo animé président de la république ba mu bëgg ne moom. léegi moom mooy jël port comme mën na ci dara à la fin si waaw finalement mm. xam nga tamit aussi il faut <laughs> baaxul euh, baax na bon su ma nee baaxul politique politicienne mm-hmm. baaxul parce que à un moment affaire yi nga doon bañ démb moom ngay continuer di ko bëgg a défendre tey mm-hmm. te dama jàpp ne euh, politique valeur la avant tout mm-hmm. donc tamit ay principe yu dëgër la yoo gëm mm-hmm. comme ni ko monsieur Diop waxee par rapport aux conséquences conséquences effectivement ay décision lay rendre rendre na décision ne président organiser élection le 31 mars ginnaaw bi mu substitué woo nest pas si président parce que président aussi duñ ko bàyyi y a une carence quoi mënuñu ko bàyyi mu continuer si euh, clair obscur boobu noonu ñuy dem ak moom ba le deux mm-hmm. le deux mën na ñëw ba le deux nañu maa ngi dem sama yoon qu'est-ce mm-hmm. et selon les juristes les textes prévoir uñu n'est-ce pas vide du boobu noonu donc dañu dugg si loo xamante ni aussi mm-hmm. day doon lu compliqué donc en ce moment là le conseil constitutionnel man je comprends que après léegi nag est-ce que c'est fondé ou pas on, on peut discuter mais je comprends n'est-ce pas la décision ñu jël les devants il faut ñu bi ñu jëlee les devants nag mais man dama jàpp ne président Macky Sall dafa nekkoon dans une posture de defanteek defante defante parce que lu tax mu raccourcir ko indi ko le 24. alors que le 31 bi conseil jàppoon respecté woon na les 21 jours. de campagne donc oui. parce que conseil. c'était la bonne date il prenait cette date là ils avaient ah, calculé. bien donc mm, président Macky Sall ne leen jël ngeen li nga xamante ni moomu leen ko effectivement moomuñu ko mais nag suñ la nee yaay bàyyi xale bi ngénte bi jot na tuddal xale bi ngeen doo tudd xale bi nga bëttal. ñu ne la jàppal dat ngay bëttal mais bu yàggee maamu xale bi day ñëw ne la sama waa ji xam la mooy dëgg xale bi dañ koy ngénte léegi nag su boobaa boo boo rétracté woon nag ne man léegi damay organiser ngénte bi dañ leen di comme yaay baay yaay joxe sant yaay joxe tur mais yow organiser donc président waroon a organiser organisé wu bi ñu ko poussé à bout il a il a raccourci man je pense que c'est fait sciemment man sama xalaat. parce pas des parce que des candidats. bu nekk mënoon na ko attaquer ne dañu raccourcir les délais parce que c'est pas conforme à la loi électorale même le man euh, aw benn problème ak euh, les candidats recalés wala spoliés yi nga xamante ni ñoom ils sont dans leur droit mais président Macky Sall man je pense que moo ko tey. parce que il voulait montrer au conseil constitutionnel mm. que li ngeen jël nii du jàll. sama dogal la maa ko war léegi man dinaa leen indilaat beneen liggéey maanaam dina jaar à travers le PDS et cetera dinañ yóbbuwaat ay mbir ca au niveau. du conseil oh, mais li nga wax noonu. si xam nga euh, euh, baal ma ci dagg bi mais xam nga li nga wax noonu. Mm-hmm. bi bi jëlee le 24. ñun ñëpp te loolu def am nañ fi débat fii. Mm. ci décision yi conseil constitutionnel di jël. Euh, ba mën nañ li wax naan. bu conseil constitutionnel ne woon nañu taal Sénégal est-ce que dañuy seetaan ñu ne ma ah oui noo mais loolu c'est c'est man leen non c'est du du question. da ngay jël c'est xam nga fii laa woon ndokk yàlla nga xam ne. <laughs> fi ma ko waxee fii laa di ko fi waxaatee. <laughs> Mm-hmm. ñu ne ma non dama kàddu mais tey jël na ndogal ñu ne même bu baaxulee sax kenn amu ci droit def recours mais président bu jëlee décision ne ko man maa war a am prérogative d'accord jël ko mais bu ko jëlee. teggi na li conseil constitutionnel wax. kon ça veut dire que tey jii li conseil constitutionnel wax article 92 président mm-hmm. violé na ko. Mm-hmm. bi mu ko bi mu ko violé. conseil constitutionnel mënoon na ne ne rendre naa sama décision ba pare. du ma ci mm-hmm. dellu si waat. parce que dafa parce que dafa ne euh, euh, euh, constaté na carence am. su ma constaté sa carence. Mhm. même boo demee ba rétracté wu ne da ngay def. bés bi ma jàpp bés bi ngay def. Mhm. dama d' accord. non man je suis d' accord avec donc du coup xamul loolu laa bëgg ñu wax ko Sénégalais. ñu mun ko te wax nga sànq lu am solo. Mhm. d' autres l' ont souligné le fait que. Euh, communiqué boobu déjà ça devait pas être un communiqué. Ah, mais le président du conseil est le seul à le signer. mais fa fa alors que décision yi. ñoom sept ñoo ko jëloon te ci ci wàllu boobu. mais mais bu ñu jëlaatoon décision. dafay nekk encore une autre violation de la loi xam nga il faut que ñu xam ne bu ñu bëggee un état de droit ñi xam ne ñoom lañ ko dénk. Mhm. ñoom ñoo war a njëkk nekk ñoo xam ne dañuy sàmmanteex loolu. doxal yoon te fu mu ne nii problème bi ñu am loolu la jël nañ date chef de l' état jël date ñoom ñu def communiqué wala donc Badio Camara def. communiqué mhm. ne fekk si na président ci loolu mais amul prérogative boobu. amul prérogative boobu dañ ne conseil constitutionnel comme li sànq li ma doon wax. Euh, gàllankoor président Macky Sall si fàttali na ko. ginnaaw bi mu recevoir. Euh, mais ñun bi bi mu ñu njëkkee recevoir. le lendemain la bi may def émission le lendemain matinale bi ma doon def fa ma toog fa lañ ma liiral le communiqué. absolument mu évoqué waat l' article 92 de la constitution. Mm-hmm. ñu ne ma léegi loo xalaat ci lii man leen c' est conforme par rapport lañ fa waxtaanee. ba ma leeral lu bëri liñ fa wax. tey jii moom. président lool la leen waxoon kon ça veut dire que fàttewul moom article 92. Uh-huh. dès lors que ko muy munul toog jàpp date le 24. soi-disant boobu yëgul ne communiqué ba lay génn parce que avant muy jàpp date bi boobu fekk na nit ak ñëpp di wax ne décision conseil constitutionnel jàpp na date mm-hmm. mais normalement le président doit être premier informé muy loolu muy benn ñaareel ba ni muy nekkee le premier à informé noonu la waroon mën a toogee ne ah dès ko ñoom jël nañu date parce que euh, euh, euh, constaté nañu sama carence mm-hmm. naa conformé wu ci loolu. absolument mm-hmm. mais defu ko. d'autant que la la mu jël date boo xam ne. il sait il sait que ne en prenant cette date kenn mënul taxaw tey justifier lan moo tax le président jël la date du 24. kenn mënu ko. c'est-à-dire kon yéen jàpp ngeen ne moo ko tey. comme li non man moom dama jàpp ne moo ko moo tax ñu attaqué ko. moo tey parce que dañ ne lii ci xëy na ci ci lu ñu mën a wax ci langage courant dañ naan luy waxu. lii kon finalement nous avons cette crise là hein. non mais crise mu ngi noonu. et c'est que c'est ça que les Sénégalais ne veulent pas voir wala ñi ne jàpp nañ ne bu élection bi tàmbalee euh, huit heures midi ñoom gagné nañ ko. dañ naan kon quelque soit alpha nañ dem ci élection mais nañ tey ñu ngi dem ci élection boo xamee ne ne serait-ce que mais gis nañ fii nit koo xamee ne da ngay nekk coupable. ñu yóbbu la pour juger la mm. mais parce que procédure bi mu am mu dem mu mu am dans la forme mu am benn erreur def ñu ko vice de procédure vice de procédure ñu libérer nit ki te daf lay wóor na ne kii il est mm. coupable wala li muy def moo ko def mais kon ça veut dire que ne élection bi ñu nekk ni am na vice de procédure mm. ba pare nag conseil constitutionnel wala boog baajo Camara ànd ak ànd ak chef de l' ci loolu qui viole la la constitution yow tu en tant que garant et euh, gardien de sa la continuité de de de et de la de la de de de la stabilité des institutions nga ànd ak moom ci loolu. léegi enseignant communiqué est-ce que aussi attention euh, communiqué bi man j'ai un problème avec le communiqué. comme ni nga ko waxee comme ñun ñëpp nous avons il aurait dû revenir avec une décision. et bien sûr parce que dafa jël décision et avec les signatures des autres membres. mais bi yoon. il la la responsabilité sur lui jusqu'à preuve du contraire. Mm-hmm. léegi ci laay ñëw nii <laughs> léegi. moo tax quelqu'un comme Abdoul Mbaye pense que li conseil constitutionnel njëkkoon dogal ba tey moo fa nekk. mooy le 31 parce que boobu moo am la signature ou damay nangu li loolu loolu nga wax noonu parce que fu mu ne nii suñu fekkee ne dañuy dañuy appliquer état de droit. Mm-hmm. kon convocation bi nga xam ne moom moo tax ñii di raw seen bopp di daw. Mm-hmm. le 24 bu ñu demee war ñu fekk dara. war ñu voté war ñu voté. le 31 la ñu war a te fu mu nekk nii gannaaw décret bi génn na ba ñu publier dans le journal officiel ça suppose que suba bu ñu nee non finalement le 31 la ñu koy def il va ñu defaat beneen décret bi abrogé bi. absolument absolument ñu war a dëkk nag ci Sénégal ci décret. sur décret décret ci décret donc ci confusion boobu la ñu nekk te ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ak Sénégal yi bëgguñu leen wax li am. dañu leen di wax rek voilà euh, euh, le front démocratique ne veut pas d'élection parce que c'est des frustrés ak yu mel noonu mais nous nous nous défendons un état de droit ñun ñi nekk ci front bi ay magum jëmm la ñu Sénégal moo ñu ñor. man nag front bi nag euh, man d'accord naa ak yéen de <laughs> mais man front bi xam nga moom si gêné. Mhm. yéen ay spoliés ay recalés. Mhm. man d'accord naa ngeen ànd. waaw man vraiment seen compagnonnage benn moom a gêné mooy c'est le compagnonnage avec. le PDS moi ça me gêne parce que. mais mais yéen bokku leen yéen yéen bokku leen sax parce que. tey ah, gaa yi du benn gaa gaa dañuy xaaral ma ñëw gaa dañuy maasale. gaa dañuy maasale dañuy jékki-jékki ne Karim Wade ak ñoom est-ce que vous voyez. les spoliés un peu bu gaa yi def Karim Wade. Mm-hmm. Mm-hmm. kenn jàpp ko ci parrainage. Mm-hmm. Karim Wade jàppuñu ko ci leneen. Karim Wade double nationalité mooy problème am. d'accord yéen yàlla dogal na yéen amu leen problème boobu noonu. waaw mais yéen benn problème ngeen am. mooy nañ leen compter lee. seen parrainage nee ngeen baaxul. léegi yéen man vraiment man dama jàpp ne gis nga PDS nii dañu nekk di di profité si xam nga ñii <laughs> ñii dañoo baax da ngay ñëw peut être si ñoom non noonu la non <laughs> ñoom waruñu ànd man sama waruñu ànd ak PDS non bokkul non xaar na non xaar ma leeral la xaar ma leeral la parce que seen compagnonnage boobu moom vraiment posé na problème non mais naa la rek gis nga ci li nga compagnonnage boobu nga wax noonu mm-hmm. cest à balaa nga koy tudd yow àndi nga ci tontu ndax da nga ne les spoliés